mbokk téléspectateurs yi am mbégte lool ànd ak euh, suñuy partenaire dellu si léegi léegi rek euh, ci seen émission bi nu wareef ci télévision ba euh, Média ànd nag ak Adja Diouma Diouf Ndiaye bu ministère de la santé ah, ak contribution fini yëpp ñu ñëw toog di waxtaan Alaaji Ndiaye Lo Ndiaye ñu nekk ci temu moytu nef maa ngi doon junj sànq Adja Diouma ne li nga xamante ne nekk moom la ñuy waxtaanee dafa mel ni. ci région yi gën a reculer la gën a méttee mhm. ndax su fekkente ne nekk dañuy wax euh, grossesse précoce mariage précoce lu ci ëpp ci région yi gën a reculer foofu lañ koy fekk avec lépp loo xamante ne moo di conséquence mhm. ci loolu mhm. dëgg la dégg euh, Adja Degen euh, bu ñu demee maa ngi ko doon wax sànq dans le sud même dans la nord xale yi yàlla def da yàlla dafa def dañ leen di teel a maye léegi suñ leen teelee maye ay 13 ans 14 ans koo ci dix à vingt quatre ans fekk mu ngi ci juróomi doom. waaw léegi nag juróomi doom yooyu. Ah. xoolal jigéen bu am ñaar fukki at ak ñeent. Ah. am juróomi doom. te war a jur ba juróom fukki at quarante cinq kooku boo xaajee. Eh, juróomi doom booy seetlu buy àgg quarante cinq ans cinquante ans dina fekk mu am fukki doom ak nangam. te wax dëgg yàlla bu njëkk sax suñu yaay yi daan nañ jur loolu. mais jamono ju nekk léegi defe naa mënatul ne. ndax li tax mënatul ne wér gi mayeetu ko. am am gi mayeetu ko. Eh, koom-koom gi mayeetu ko. Eh, dañu am ay problème économique social wér gu yaram socioculturel. waaw téye xale yi jur téye ko. doo ko mën a am te itam itam wax dëgg yàlla itam moom wér gu yaram gi war du ko def su ko defee nag yàlla dafay def bala muy sore loolu moo koy fatigué sonal ko ba mooy indi ndeete gi parce que boo demee ci région yooyu fu mel ni Kolda fu mel ni Tamba la mortalité maternelle est très élevée. la ji ko ci ligne bi. allo. asalaamaaleykum. salaam. Papa Ndiaye Ndiaye baa bu baax. Euh, dégg ngi lay fay bu baax a baax. maa ngi leen bu baax ak seen invité bi. ndeysaan. allo. waaw ñu ngi lay déglu de. waaw dafa am ku dugg sant di wax naan ay jullit dañu nañ bàyyi eh, nit di jur. man bala ma doon kontaan jigéen jiy jur mu mu wootee wax loolu. ndeysaan. ndax jigéen moo xam ne nekk ci wëssin. wallaay wallaay. jigéen nga xam ne nekk ci wëssin moo mën a wax loolu mu balaa. dëgg la. même xale yi bu ñuy wax yenn sujet yi ñu bëgg ñu def rek yàlla. naan ñu ay jullit la ñoo ko. ndeysaan. ak ak leneen ak yeneen yenn wax yi. ndeysaan ndeysaan. ndax jur ay doom yu bëree bëree bëri bëri te ñu mënoo leen dundal. toog nañ jullit laa yàlla yàlla fay sa tool. ndeysaan ndeysaan. nañ nañ nañ xool lan mooy mën a jëmale askan bi kanam. ndeysaan. di jur di jur xale yi ñu mujj leen de retrouver ci trottoir yi ñuy ñuy yelwaan. yooyu dafay doy waar. dëgg la. démb Iran Ndao laa doon déglu nee na góor mooy nekk. li Papa Ndiaye la wax sànq. exact exact. nee na sa jabar di wasin wasin am ñaari ni mu lekk supp topp tolloo ko. waaw ah. teeloo ko xale bi naan ko damaa bëgg ñu ñu dellu ci yeneen yi. ndeysaan. yooyu dafay doy waar. man xale laa. mën naa wax ni que sama coono àdduna sama njaboot gu sakkan te nga xamante ne bii doo mënal xale yi dara. ndeysaan xale yu bëri nga dugg ci ay caaxaan yi ci ñàkk yooyu yëpp ci la jóge daal. wax ci daal maa ngi koy yemale fii maa maa ngi def gros bisou. kontaan nañu ko waaye yàlla yàlla oyofal leen bi yàlla yàlla oyofal leen yàlla yàlla yàlla may jàmm allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla fayal ñu leen. Hmm. laal na lu am solo laal na lu am solo. daal. débat bu nekk mm. ak euh, mm. ña ca war a toog waaw am naa yaakaar ne mm. lii nii euh, islamologue yi comme ni ñu leen di waxee débat nañ ci ba ba upp ko waaw waaw mm-hmm. kon nag fatamakala macha allah suñu invité docteur defe naa ne moom islamologue yi bàyyi na leen seen cër bu baax waaye yaa ngi ñëw ci waru euh, mbiru wér-gu-yaram waaw mbiru wér-gu-yaram laa ne ndax wax dëgg yàlla débat islamique bi sax am na argumentaire religieux am na argumentaire religieux boo xam ne dañu woo ay islamique ñu waxtaan ci mais mbirum yaram maa ngi wax sànq ne xale bi nga teel a mayee mu jur ñaar fukki at ak ñeent fekk mu am juróomi doom balaa àgg fukki doom yaakaaruma mu àggale ndax butitu njurukaayam dana woyof dana sonn dana bala muy àgg ca yoon ba des ci yoon soo gisee mag ak xale ah. da di nga leen ah. waaw ndax wax dëgg yàlla bu njëkk eh, xam nga di nga ëmb dafa am solo sax yow nga ëmb wasin nàmpal booy ëmbaat am sax koo xam ne mën nga ko yónni xale bii ñëw juddu eh, mu xam ne kii tofam la wala kii magam la ñu mën a ni ko eh, allah ji di waxe ñaari xale yu ànd mënoo ràññee ku mag ak ku ndaw ndax mag eh, yaay ji bi mu koy nàmpal tegu ci sax ñetti weer daa di jëlaat ëmb ah daa di arrêté ko noppaliku sax ñun ñuy jël ak jël ak ah takat takat dégg na xam nga lu ci gën a metti doguma la ndax dañuy futi ba nga sax doo ko xam ne ndax ndax métit bu ci tegale ay ngëm loolu te sax xam nga lu ci gën a metti boo ah. futee nag ah. ñu teg la fa nag daal la fay ah. romb dem feneen te fekk nag ñoom ñoo la futil ka ñoo la futil ñoo la takki keneen mbaa jaalli feneen bàyyi la te wax dëgg yàlla damaa defe ne loolu it bokk na ci iir jigéen bokk na ci aar jigéen góor ñi itam bés bu ñu jëlee vraiment porté planification familiale di gunge seen jabar ji ndax affaire moytu neef affaire de couple la jigéen bi rek sax warul dem affaire ay way deccante la dañu war a am laaj yi ci loolu lay dox waaw <laughs> allo waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam maa ngi leen di nuyu ñu lay fay maa ngi leen di baax dégg maa ngi lay fay bu baax ak suñu papa bi ñu toog maa ngi lay fay mhm. dama bëggoon participer ci émission bi ñëpp ak lay déglu sama doom man daal dama ci wax daal mm. kii bariwul parce que planification euh, planification familiale baax na trop parce que boo jurulee. soo ko defee boo ñëwee kaar mais jigéen ñi na leen. ah day doon parce que ëmbal dafa metti. ah boo ëmbee si boppam sa kër. ah doo ko mën a toppatoo parce que loolu ji ngay jànkuwante. benn banque naa. sa borom kër. ah doo ko mën a toppatoo. ñaar parce que problème bi ngay jànkuwante ay métti. walaay walaay. jafe bi metti fekk na ku wax na ni. planification familiale baaxul ak loolu boo nga xam ne baax na trop. dëgg la. waaw dëgg la. loolu daal laa daal ñuy jigéen ñi daal solo nañu. Mm-hmm. ndeysaan jërëjëf jërëjëf yaa ngi woon fu am solo alaaji wallaay ah. léegi te loolu sax benn la ci waaye xoolal fi ñu toll nii ci jamono xale war a jàng nga teel ko maye mu sëy du jàngee te abandon scolaire waaw su ko defee te ñun ñu ngi ñu ngi campagne pour ah. ne jigéen ñi jàng ah, waaw ak scolarisation des filles waaw te wax dëgg yàlla ku ci sa doom dem ba université tekki dana la amal njariñ waaw te ku nekk xam na ne xale très tôt mënoo bëgg boole sëy ak ëmb ak wasin day xaw a jafe bëgg booleeg jàng day xaw a metti waaw ba tax na daal man dama yaakaar ne euh, fi ñu toll nii góor ñi euh, ni ma ko waxee affaire de couple la doonu sax loo xam ne jigéen bi rek mooy dem ah. ñi ñoo war a gunge seen jabar même la muy jël sax yow yaa ko yéen a ko war a tànn yéen ñaar bu jënd amee yow yaa war a génne sa poos nga jënd kër ga yëpp buñ demee yow yaa war a topp ndax méthode yi bëri na yow yaa war a topp lan lay jël nga fexe ba loolu muy def mu réussir ngeen waxtaan yéen ñaar toll nañu fi fi fi docteur di wax dañ koo talul dañ koo talul lu tax euh, li tax maanaam mooy mooy suñu bopp la ñu tal mm. boo talee sa bopp nag ki nga doo ko tal dëgg la te nag boo talee war ngaa tal ki lay talal. dëgg la nga am jàmm. dégg nga lii muy soxna si kër gi. dëgg la. Euh, da nga koy pousser la. ak wér déem. dëgg la. nga may ko ko fekk ci ko. ndeysaan am na ñuy naf ñeexu leen. ndeysaan dañuy bëgg na ci ndigal. ndeysaan kañ ñu dajal nag moo leen di teg fitna. ndeysaan ndax day dee su dëkk. ndeysaan déedéet. dëgg la li la war a jëriñ ëllëg bu bu génnee. Mm. sa xel war a mën a dal. ndeysaan mooy soxna si waaye su amul jàmm te wérul. Ah. boo des góor doo am jàmm. dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan allo. allo. waaw bisimilah soxna si. soxna si naa leen. sant buur bi rek di leen ñaan ngeen wàññi télé bi. waaw li ngeen di def kontaan naa ci trop émission bi neex na te baax na. seen émission la. yàlla na ngeen yàgg suñu kanam di ñu yedd. amiin amiin yaa rabbal alamin man la Lalla Badji maa ngi woote ba Sédhiou. soxna Lalla Badji waa Sédhiou Sédhiou foofu moom. li xale yi di wax waaw Sédhiou Sédhiou ma ne naka la demee foofu. ndax jigéen ñi ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi xalaata moytu ne foofu ca Sédhiou. ah xanaa dëgg la dëgg la Badji. waaw ñu ngi nuyu waa Casamance <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf. xam nga déggan ñëpp bëgg doom. dëgg la ku bañ doom amul. déedéet. ku bañ njaboot amul. ndeysaan. waaye dañ ni li docteur wax. ndeysaan ab say société la. yéen ñi ko seq yéen ñaar. ndeysaan. buñ ci boole xale yi waaye kenn ku ne na yéene sa bopp wér gi yaram. ndeysaan. moo war a mën a dimbali ku jigéen ki. ndax ki bëgg a te bëgg lii saa borom wax mu def ko ci sëy du gàntu du bañ dëgg la boo xel na gaañ ko ba bu ëllëgee dootu la amal njëriñ ah, ah. dootu la amal njëriñ wax naa ne jigéen du neef góor ay neef dëgg la laaj ndax ki nga xam ne yaa ko teg loolu moom mm. xelam dalul la mm. waaye tegu ko boppam yow mi ko teg ni tu ko dëgg la su ëllëgee lépp si kaw lay gën a la ñaar ñu ànd te xamoo ko ci mag juddu xaw ma ku ci mujj juddu kartal léewu fa waaye ndey jaat wér bu jabar wérul nag bu mm. dajeek góor gu am ngor wërte wér mm. su amul nag ndimbalum yàlla lool mbaa jékkul lool yéen yekk di ah, njabootam jekkati dootuñu wér soxnaam jekkati dootu ko amal njëriñ kon laaj na waxtaan laaj na waxtaan allo ku baax ki waaw téléphone baa doon déglu ñëpp ak lay déglu ñëpp ak lay déglu

planning familial bi day taw am baax dana day taxawloo jigéen danay faral di taxawloo jigéen lu yàgg. mais nag def ci conséquence yi muy yi muy jural nit ñi am na xale yoo xam ne ñu ngi toog mënut ñoo am doom man am na tey copain yoo xam seen jabar yi ba mu taxawee kenn kenn xam ban mille cent la. waaw mais conséquence yooyu am na planning familial bi mën nga ñu sax baaxul mais ñun nit góor ñi mën ñoo jigéen ñi ko soo yore ko jabar mën nga ko organiser yéen ñaar sax nga xam ne ñu ngi ñu ngi nekkee mais planning familial bii baaxul ndax ñu ngi koy defee toujours ñuy jël ak taxawaay yi ko wax. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf docteur sa paquet a waaw. lii <laughs> nii baax na. baax na parce que ñu bëri. Euh, lii la ñuy faral. waaw léegi yow mii docteur lan nga ci euh, tontu. waaw euh, xam nga man li may xaw a jaaxal tuuti. Hmm. mooy bu ñu nee nit ñi nañu soreyanteel njur. ñu ni. yàlla nee na yonent bi nee na te nit ki bu amul doom ñu ne planning famille yàlla lu tax foofu duñ fa indi yàlla yàllaay joxe doom waaw ah, planning loolu taxu koo jox ndax ay garab la yoo xam ne dañ ko saytu xool ko ba mu méngoog yaramu doomu aadama nga war ko mën a jël waaw effet secondaire mën naa am ci garab bu ne aspirine sax boo ko naanee mën naa am effet secondaire waaye luy gaañ nit amul ci planning familial garab produit contraceptif yi dañ leen a liggéey comme garab yëpp seet leen léegi nag mi ngi ajoog bu fekkee yow yàlla dafa def da nga soxla soroyantool sa njur boo demee ci mbedd mi jënd mm. wala demoo kër docteur ñu xool la ndax bala ñu la koy jox bala ñu ko bala ñu la koy jox ñun docteur mm. ni ñu koy waxee dafa am ay critères d'éligibilité ah. critère d'éligibilité mooy dañuy xool sa yaram xool bu méngook sa yaram seet sa tension seet sa poids seet sa lépp mm. ba ñu dis ni bañ nañ ko boo ñëwee lay tagal ne la lii lii la lii lii la nga tànn soo tànnee duñ la jox de dañu lay seet bu fekkee bi nga tànn méngoo na ak sa yaram ñu jox la bu méngoowul ak sa yaram ñu ne la lii de méngoowul ak sa yaram tànnaatal ba keroog ñuy bis bu méngoo ak sa yaram buñ la ko joxee dañ lay jox ay rendez-vous di la topp ma doon wax léegi di bëgg leen sàmm ci kër ga di leen topp di ànd ak seeni soxna ñuy bokk di topp garab gi di respecté it seeni rendez bu boobaa benn jafe-jafe doo am waaye bu fekkee sa morom dafa jënd ñëw nga ne ko weer wii de yow yaa dem jëndi abal ma benn plaquette awuma xaalis te yow demoo kër docteur bañ seet la wala ca nga war a dem demoo ko loolu du sotti bu dee renseignement numéro vert ministère de la santé mi ngi fi c'est le 800 waaw c'est le 800 00 50 Ah, service bu la mën a jox ay renseignement ci planification familiale ma nga fa ba tax na nag boo demee boo soxlaa da ngay ànd ak sa borom kër ngeen dem toog ngeen ànd waxtaan ñu wan leen li nga soxla xool li méngoog sa yaram ñu jox la mais bu fekkee yow jigéen bi bëgg nga moytu nef sa borom kër mayu la ka ngay nëbbatu di sàcc di ko def di ko jële foo ko warut a jële loolu mën naa indi jafe-jafe ndax garab yi garab laa rek garab nag wax dëgg garab laa rek waaw mais nag garab bi nga xam daal dem nga fa nga ko war a jële ñu seet la di la topp kooku moom amul problème wax dëgg yàlla amul jafe-jafe planning du lor kenn waaw da lay jàppale paquet boo xam ne euh, bëggoon naa ko daaj aussi mhm. ndax Euh, sànq da nga wax. donc foog ñu taxaw fa. ci grossesse précoce. ci mariage précoce. gis nañu ñu développé ay programme yoo xam ne ci région yu mel ni Kolda. yoo xamante ne gis nañu ay 12 ans. di ëmb. ñu gis sax ba nga xamante ne euh, euh, mortalité maternelle bi. Mm. ay problème mu fistule. ay jàngoro yoo xamante ne da nekk xale tout tànk ñu maye naam euh, euh, sa jëkkër sax xaarul parce que am na ñoo xamante ne dañ lay maye nga xaar ba yaram ba mat yaram ba muus sax nga doog a koo samay xale yooyu nga xamante ne ne la gis fukki at ak juróom suñ la waxee kii fukki sax doo ko gëm ndax yuree ko gëmu ko ak ak ak euh, daal la la ñuy naan daal perdal gam perdal loolu nga xamante ne ne que jigéen mu koy daj te góor war koo xam war ko cee dimbale mm-hmm. nga xam nga ñaari loxoy takk sër ñaari la ko ñaari loxoy takk tubay mm-hmm. kon allah ji programme yu nii baax na suñu koy yëkkati mm-hmm. ak di ko saytu jigéen tamit di waxtaan ak seen borom kër yi pour ñu leen di dimbale kër docteur euh, di leen di leen gunge pour ko ñuy dégg conseil ak xam fan lañ jëm alaaj ndax tamit dëgg dëgg dëgg dëgg jigéen ñi sonn waaw xam nga li waa yi wax sànq parane euh, daf am fu mu war a yem dëgg la boo dee ba li nga doon aar yàlla dimbali ba sam xel daal bàyyil dëgg la am na ñu nag dañ koy continuer dëgg la suñ ko continuer nag mën naa dem a dem ba loraange mën ciy juddu dëgg ndax fa mu doom waroon a nekk dina ko rey mu xumaat ba dara luy toog dootu fa am ndax plan yi du continuer di wéy ndax ndax xam naa dañ demul ci docteur ba ñu xelal waaw waaw mooy limal rek ndax boo dee nëbbu sa jëkkër di def dëgg la te sa jëkkër xamul loolaa nga mën naa ci yëg ak di jënd dara bu mbett te tam ñaar ñiy sëy nëbb di ci wëtaam dëgg sëñ bi soxna si sëñ bi daa bëggoon a defe nàngam ndeysaan ndax sama yaram nàngam ndeysaan mu sol mbuuma ànd ak yow dëgg la la te docteur am ci yoon. ngeen fexe ba ànd ca. ngir ëllëg mën na la ci gunge. ñoom te du am. dëgg la dëgg la waaye nëpp di def ci plan yi. dëgg la. mën naa indi erreur dëgg la teel sa jabar ci plan yi mën naa indi erreur. jëlee ci ligne bi daal dañuy déggoo tey di ànd. alo ah. allo. allo waaw soxna si. waaw allo. allo allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar. waaw jërëjëf man Samba Thiam maa ngi wootee depuis Paris. sëñ Samba Thiam Thiam naka waa Paris. di leen nuyu quoi li ma gën a métti ci àdduna yëpp mooy li ngeen ñëw Paris fekk ndeysaan ma feebar. kon leen a seetaan ba sonn ko yàlla xam na ko nag. ba téléphoné seen waay. wallaay wallaay kisi ma. seen waay jooju quoi ci numéro ma téléphone kañ ñu ñëw ah. kañ ñu def loolu. yàlla def rek euh, ma ma ma ñàkk bi. aywaay aywaay aywaay loolu métti lu nañ ko ma trop wax yàlla mais nag maa ngi sant yàlla quoi. wallaay wallaay wallaay bés bu ñu dellu see di nga fekk nga wér peng incha allah. <laughs> wallaay wallaay ñu ànd def ko ci kàttan yàlla caam. wallaay wallaay ndeysaan bisimilah bisimilah bisimilah. di rafetlu liggéey bi baax baax baax baax macha allah. di nuyu uh, sama najaay sama papa sama yëpp <laughs> maa ngi lay fay maa ngi lay fay mooy mooy sama turandoo. ndeysaan jërëjëf. maa ngi tudd Ndiaye Ndiaye li ñu may wax léegi. ah allah ji kii da nga ko woy ngénte nag. dama koy ngénte. waaw kenn sama taataan Ndiaye Ndiaye la tudd léegi. ndeysaan dama lay ngénte rek Ndiaye. ndeysaan ndeysaan. wallaay jërëjëf di kontaan vraiment seen émission bu baax. ndeysaan. di ci yokk rek vraiment jigéen quoi jar na dimbale quoi surtout nuñ góor ñi quoi ñoo jar a dimbale euh, jigéen ñi. dëgg la Thiam. parce que vraiment jigéen quoi am na fu muy toll vraiment yor njaboot gi. vraiment ah. njaboot ku sew sew gi. wallaay métti trop. Ah. waaw day métti trop quoi vraiment jigéen ñi daal góor ñi daal ñoo leen war di dimbale. parce que boo yore sa jabar. nga ah. nekk ak moom mu am jabar mu am doom. vraiment ko war a dimbale quoi. boo ko dimbalee vraiment quoi ñaareel yu nekk l'islam li mu wax ñaareel yu nekk. Euh, jigéen ji war na mën a am doom. ndeysaan. vraiment boo ko dimbalee ci loolu. Ah. vraiment dina ci mucc quoi parce que vraiment yor ñeenti doom yi nga xam ni saa yi rawantiwuñu at. rawantiwuñu juróomi weer. Ah. waaw benn weer. Ah. vraiment day métti ci ku jigéen. métti na daal. métti na trop wax dëgg yàlla. a fóotal doo leen tàngal te euh, euh, feebar lu mu ko la ñemee yëpp moom mooy ku nekk. wallaay wallaay Thiam. yaa ngay sibbilu ma ngay euh, weñ yaa ngay dal foofu la nekk salte bi mënoo fóot mënoo def dara la la nekk quoi ci yow la wallaay wallaay ndeysaan vraiment góor ñi quoi ñu ci war a dimbale quoi ñaax dimbale seen jabar ndeysaan ndeysaan caam caam parce que jigéen vraiment bu wéree rek ma ne waa kër gi yëpp dañuy wér waaye waa jigéen su wéree jigéen mooy kër ci ci ci jigéen mooy kër dëgg la ba jigéen gi wéree rek kër gi day wér. ndeysaan ndeysaan. kon nag maa ngi ñaax quoi suñu mbokk yi góor ñi quoi ñu dimbale jigéen yi. jërëjëf Samba. jigéen yërëm rek la leen parce que vraiment jigéen moo eh, yërëm. ndeysaan dafa yërëm tullu vraiment bi ñu ko dimbalee. ndeysaan ndeysaan. boo yore sa jabar da nga koy dimbalee mooy wa mooy yoon. dëgg la dëgg Samba. waaw maa ngi. kontaan nañu te loolu nag vraiment rafetlu émission bu baax quoi. waaw mais ma la bëggoon a gis Pape. ndeysaan ndeysaan waaye waaye yàgg nañu ko incha allah toujours quoi ci ñu ngi leen di sangal bu baax a baax ñu ngi leen di sangal génn na fa am solo nag. génn na am solo Adja xam nga ni mm-hmm. boutique moom li nga wax sànq rek mm-hmm. allah ji sànq tamit wax na ko. Mm-hmm. xam nga ni boutique bu jigéen xoolal lu day ni doom ak fañ koy placé. juróom-ñeenti wéeru métit nga toog fa tabakalla macha allah suñu borom bi ñëw may la nga mucc fa tabakalla macha allah nga dem fa góom ba nekk wéragul sax nga tegaat fa leneen dañ ciy gis euh, euh, koo xamante ne day dem ba xiiboon taayale dafa kenn koo xam ne dañ ma ko tàggee ndeysaan maa ngi wax ak sama doom ji ma ne ko ma ne ko waaw kii moom euh, demee na ndaw di mu ne ma mu ne ma mamaa sonn rek mu ne ma jur bu bari rek mu ne ma jur bu bëri rek xam nga dafa am ay problème communication yoo xam ne am nañ ko ci mm-hmm. waaye fii ñu toll ci réew mi war nañu mm-hmm. sukkandiku ci média yi mm-hmm. kenn sañatul wax ne xamatuma góor ñi tamit bu ñu jël fatabakàlla macha allah ay argument yoo xamante ne ne que an dëppoowul ak li nga xamante ne moo de suñu wér-gu-yaram ndax defe naa ni diine yëpp bëgg wér-gu-yaram rawatuñu suñu diine bi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ajaajo ah. euh, xam nga man xam xam naa sama xam-xam sax sorewut waaye dama ragal nii ah. dafa naa jigéen taaram sax pour mu denc taaram sax taxoon na ñu ne sax na noppalu ci njur naaka na noppalu ci njur pour gën a mën a dëgër ndax euh, fi mu ne nii euh, man dama xalaat ni yàllaa dogal loolu góor ñi liñ dul ëmb di wasin la rek waaye bu ñu doon ëmb di wasin ay kon dinañ ah, xam ne bu ñu doon ëmb di wasin kon dinañ xam kon dinañ xam ne nef neexalul kenn waaw nef neexalul kenn ndax nag ëmb di wasin metti na mettit goo xam ni boo ci jógee war ngaa mën a noppalu yow jigéen bi sa bopp war ngaa mën a noppalu bu wiraat waaw doogay mën a parewaat pour juraat doom pour mën ko iiraat mën ko nàmpalaat mën ko toppaat ndax ni ma ko économiquement sax mm, foofu laa jëm si xam nga yow bu yàlla defee ngay ëmb di wasin di ëmb di wasin ah yow koom-koomu réew mi ah. eh, ku ne xam na li ñuy joué ci ah. koom-koomu réew mi ah, waaw da ngay sa jëkkër sax ci kër gi dimbali xam nga nag wax dëgg yàlla toog ne fanaax rek di sëy rek góor yor la daanaka booy seet ba ci biir de bëreetul waaw jàpp fii jigéen ñi jàpp fii même bu fekkee góor ñi indi it yow jigéen bi di nga sàmm kër gi di nga i di nga aar te boo wérul defe naa doo tal loolu a loolu doo wérul doo mën a tal la santé ak ah. allah suñu borom mi defal ñu ci ndam fatabakallah macha allah kon looy tàggoo waaw li may tàggoo tàggoo rek moo di euh, euh, jigéen ñi ñu xam ni wax dëgg yàlla wér gu yaram lu am solo la ñuy waxtaan ak seen borom kër yi seen borom kër yi it di leen jàppale ndax bu ñuy wax moytu neef ka ca néeg ba di sëy wax dëgg moo ñu gën a tax sax nag di wax waaw boo boo déggee neef ka ca néeg ba di sëyee ñu tax di ah, ah, wax góor ñi jàppale <laughs> leen di gunge seen soxna yi uh-huh. ah, di ànd ak ñoom kër docteur bu yàlla defee ñuy neef ñu soroyanteel seen njur tënku ci tënku ci li diine wax ak OMS Gomes wax yamale ko ñaari at boo waree juraat yoon ndax léeg-léeg dama leen di tooñ ne leen xale day def yëfu xale xale day jur ndax itam ñun itam grossesse tardive ñun itam bëgguñu ko yéex a ëmb dem ba ay ay quarante cinq cinquante ans ëmb boobu day jur jafe-jafe boo tolloo ci jur jural bëgguñu grossesse rapprochée bëgguñu grossesse tardive boo waree jur rek jural waaye nag nga soroyaantoo jur ngir nga wér sa doom wér askan wi wér nga mën a toppatoo fekk sa jabar mu mel na ko neex ah wax dëgg néeg ba xeeñ mu sol lu ko neex ah, solal xale yi ah, dafa naa nag di nga kontaan wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla ba tax na euh, nag loolu la daal euh, euh, gërëm ak sant rek gërëm ak sant wax di leen gërëm di sant di kontaan lool ci ñëw bi di xamal itam ni wax dëgg yàlla arrêté njur taxu ñoo jóg ñun ñëpp ay jullit lañu waaye nañ soroyantoon njur yi ngir may jigéen yi ñu wér xale yi wér wax dëgg yàlla Sénégal avancé mortalité maternelle bi wàññi jërëjëf jërëjëf jigéen ñu mucc allah ji waaye ñuy di ñaanal baax ajaratu Leena Fall Diagne yàlla jàmmam yàgg ak ki nga xam ne kii tubaarkàlla yi nag mooy euh, ajaratu Fat Samb euh, pharmacien ci kaw la waaw docteur docteur <laughs> mu imaam Cheikh Tidiane Cissé bu mu dina bàyyi baax ndeysaan Mohamed Niass mu lew na ndeysaan euh, di siyaare bu baax Ndeye Marie Diallo docteur ndeysaan docteur di ñaanal bu baax Ndeye Marie Papa Diop Papa Diop maa ngi Tanoor Dieng ak ki nga xam ne kii tubaarkàlla nag mooy aawam bu baax boobu. alaaji mamoon naa say dédicace. waaw waaw di ko ñaal jàmm bu baax muy aram aram aram muy aram. di soxna si Ousmane. Euh, di gërëm nag bu baax ndey teneen looy. ndeysaan yàlla jàmm lancé de bul yegg si de dama namoon dédicace alaaji. <laughs> di ñaanal ba ajiratu Awa Gaye. ndeysaan mu soxna Asfaarum Cheikh Yebra. macha allah ñaanal nag Malick Gakou. ndeysaan yaa ko jàmm. ndeysaan euh, Aly Ngouille Ndiaye. ndeysaan ndeysaan maa ngi ko ñaan ak aawam beeg ñaareel ñoom ñëpp. macha allah di gërëm nag. Adja Guèye Wilane baax Guèye Wilane. Adja Guèye Wilane sama ah, xarit. baax a baax <laughs> Euh, di gërëm nag bu baax a baax tubaarkaal ni ma ko fal di wax rek hmm. yaande ñang ndeysaan sama mag sa xarit ak sëñ Mbay Si ndeysaan mu sëñ Mansour ndeysaan euh, fi may tëjee nag rek hmm. mooy teel na de allah ji euh, teel waaye da dañuy tëj ndax ko si nen la waaw loolu dina ci man a xaj dëgg la dëgg la Margot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 alaaji dem ba Louga ziyaare bu baax a baax Thierno Bachir Cheikh Oumar Tall di ko sargal bu baax a baax di nuyu tamit euh, doomu ndeyam Aminta Tall bu Paris Aminta Tall bu Louga ah soxna Abi Sow Tall ak toute la famille omarienne ñu ngi leen di sargal bu baax a baax alaaji na xam nañu li duuf ci nag bi yëpp xajandoowul ci cin li di remercier bu baax a baax sama doom Adja Kiné Badiane kaay solu nekk ca euh, HLM 6 alaaji gis nga li mu def ci chantu non alaaji lii kenn kenn lii dara fayu ko mm-hmm. dara fayu ko alaaji fa tabaarkalla macha allah séeréloo Diouf moom tamit doomu nday Fat Samb ak Kumbaloo Zurich Fatou Bakala waa Medina Baye yëpp ñu ngi leen di sargal alaaji waa Gandiaye ñu ngi leen di nuyu mhm, ndax teral gi ñu mhm. teral di remercier bu baax a baax képp koo xam ne yaa et du chapeau gis nga Waline fi muy génnee ñu ngi koy sargal salon Déguène Chimère tamit ñu ngi leen di nuyu Fallaye Kena Amadou Boubacar kooko yaayu Sofia kooko madame Sall ah Sall Sadji Sall Madieye fermata mhm. kon ba subaam jàmm ci kàttanu yàlla ci beneen émission wareef ci télévision